di jàkkaarloog beneen benn ndaanaan waaw parmi tant d'autres muy ndaanaan boo xamante ni macha allah daf ñuy defal lu neex à chaque fois daf ñuy bégal ñun daal wayam dañ koy dund daal bala ma leen ko waneel dañuy déglu musique am bu bees bu ñu indil et on revient sur la place. tege yaa ngi nii Mamadou Kora Fall c'est magnifique dafay wone beauté wu Tëngéej dëgg nag bàyyi woo benn koñ yow mais koñ yi dafa rafet macha allah dañ ko lotissé c'est bien fait ah, Tëngéej c'est une waaw c'est une très ngay wax Tëngéej mhm. boo xoolee ci quatre communes la bokk Dakar Saint-Louis Rufisque Gorée mhm. soo xoolee euh, Sénégal ñi fi dàq jàng ndar lañ dëkk déggal loolu wala Gorée wala dakaar ah ak Thiès nag ñun fooñu fàtte. Thiès moom ay kajoor kajoor ngeen sama yaay foofu la bokk. mais kajoor kajoor ngeen. <laughs> am problème baal naa la ñun ñooy les premiers te ngay la boo xam ni dañ ko lotissé xam nga defar ko ba mu naay sax am na dëkk yoo xam ne bu benn kër tàkkee rek mais temps yi moom commencé woon na def nii nag. vraiment seen kër yi moom nii lañ defoon nag wax dëgg fa yàlla. voilà non sama dëkk. Ah? dëkk day toll dëkk bu mag la day toll foo xam ni peut-être euh, lu yàgg rek hmm. rap même nit sax bu màggatee ràpp mais li fi nekk moom mooy ñu gën di defar rek waa ñun ñi nga xam ne tamit ñun la yàlla dogal ñu juddoo ci dëkk boobu. màggee mhm. fa yàlla dimbali ñu ñu génn dëkk bi dem mais bu ñuy ñëw xam nga booy génn fenn di dem. Mhm. di tukki wala foo mën di dem booy dem booy ñëw ñett yi ngay am. Mhm. da ngay indi xam-xam wala ngay indi alal wala nga indi ay. relation nag ci relation yi nga xam ni yàlla may nañu ko xama ci lañ profité ñu ne pour pas nag ñu dellu Tëngéej mhm. xool infrastructure yi nga xam ne tey jii ay infrastructure ay infrastructure yu mag la yoo xam ne ay ndaanaan yu bëri jaar nañ fa mhm. xam nga fàttaliwaat gouvernement bi nga xam ni tamit ñoo ŋànk réew mi que ni Tëngéej seen une grande ville que boo xoolee maa ngi félicité gouvernement yi fi jaar yëpp président Abdoulaye waat ak Macky Sall mi fi nekk di liggéey ñu ngi liggéey mais problème bi mooy tey jii bu ñu defee benn genre autoroute à péage mhm. c'est bien mais autori bi dafa contourné Tëngéej tey jii ñu bëri ñu daan jaar Tëngéej yow rek boo xoolee ba nga gëjee jaar biir Tëngéej noonu ci ville bi yàgg na soo dem Thiès da ngay jaar ci ginnaaw mhm. rek dem donc dëkk bi dafa dem ba nga xam ne benn moment commerçant yi doon jaay ci tali yi deetuñu gis ay clients mhm. comprendre la euh, ñi nga xam ne ñoo doon faraatu ci tali bi foofu waaw amatuñu xam nga nit ñi jaaratuñ fa et géej gaa ngi avancé xam nga yu bëri te tamit autorité fa nekk ay jàmbaar lañ ñu ngi ñafe mhm. mais il faut ñu am ñu leen soutenir te dëkk ci dëkk bi Euh, jëriñ dëkk bi moo ko gën. ko gën parce que ñun Tëngéej la ñu juddoo fa la ñu yaroo màggee fa fa la ñu suñu demee ba gis ni euh, étudiants yi ñu ngi jàng. Mhm. école bi ñuy jàng délabré wu. bu baax ñu yàgg dégg ni lycée Ablaye Sadji dafa yàgg naa dégg ni dafa am problème donc léegi nag moo tax bi ma defee suma album bi ba pare organiser sama anniversaire euh, théâtre national Sorano. Mhm. waa Tëngéej tamit wuy si ma en masse. Mhm. ma ne pourquoi pas nag ma def fa benn. manifestation organiser benn concert bu mag boo xam ne dama leen di delloo njukkal mais en même temps ma xool lan laay participer si dëkk bi. d'accord mooy tey euh, concert bi tey la. manifestation bi tey la. concert bi waaw mais boo xoolee concert yi maa ngi ko tuddee référence challenge. d'accord mooy ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ñoo war a defar dëkk bi. Mhm. donc ak samay partenaires yoo xam ne am naa leen ma lijjanti am ay bourses yoo xam ni. dama koy may les étudiants rufisquois. d'accord xam nga. Mhm. boo xoolee bourse yi boo xoolee bourse bu nekk 2 millions soo xoolee c'est une valeur de 10 millions ñu may ko la jeunesse rufisquoise et puis en même temps lycée Abdoulaye Sadji bi nga xam ne tey jii am na ay ministres. Mhm. de la république ay directeurs de société ay ponkal yu mag yu nekk ci réew mi. may turu may nuyu ku mel ni Moundiaye Cissé fa la jàngee. fa jànge ay ndaanaan yu mag yu fa jàngee comprendre la donc. waruñu bàyyi lycée bi mu yàqu. mu donc nag ci laa nii dinaa participer un million pour jàppale ko lycée Ablaye Sadji ñu defar ko. macha allah te tey incha allah. dinañ leen dinañ dinañ leen ko jox. boo dëkkee ci dëkk waroo xaar kenn ku la ko defaral yow yaa ci war a njëkk a sóobu sa bopp ba pare te yaa ngi koy wane bu baax a baax. Mm. alors aujourd'hui sa concert bi fan dafa séenee amee am na entrée amul entrée comment ça va se passer. concert bi ñu koy def euh, au jardin public de Rufisque à partir de de 18h. Mm-hmm. mu bëgg nag waa Tëngéej yëpp génn parce que soo xoolee clip bi ñu def nii dañu jaar biir Tëngéej yëpp. da ngeen a wër. ci Tëngéej. donc may woo waa jokkul kaw waa jokkul waag lébu gi eh, kii dangu Nimzat fas Daaru Salaam quartier yëpp ci biir Tëngéej mhm. et boo xoolee environnement bi ñu ñu wër ñëpp dinañ fa ñëw te tamit dina am ay kilifa yu màgg a màgg màgg a màgg yoo xam ni dinañ fa ñëw euh, yaakaar naa ni sax tey suma mag Youssouf mën na fa ñëw bu baax parce que euh, for naa ci wewu béy mu ne booy bi dama ko bëgg a bett <laughs> mais grand maa ngi lay xaar ne la bett bëgg waa Tëngéej xam ni suma grand nga suma xarit nga Youssouf for naa ci wewu béy ni di nga ñëw tëngeej tey dama bëgg nag nga confirmer ko ñëw ñu toroxal seytaane parce que suma grand frère nga te dama lay tiitaroo mais profité nag ci occasion bi mhm. du nuyu les autorités rufisquois rufisquoises parce que franchement bi ma soxla euh, euh, jardin bi mhm. bi ma woowee le maire daf ma ko yombal muy Euh, Daouda Niang ñaa Niang maa ngi koy remercier bu baax di remercier tamit ku mel ni Albendo yi mhm. sama maire la jeune la man ak moom ñoo amoon initiative bi def affaire bi te boobu ba léegi bàyyiwul mu ngi ci donc moom tamit maa ngi koy remercier bu baax mhm. mais dafa am ñoo xam ni dañu jaar Tëngéej ku mel ni Mbaye Jacques Diop mhm. bi mu fi jógee yàggul dañ koy ñaanal moom tamit suuf woyof sedd ci kaw mais mu nekkandoo ñun koo xam ni Sénégal yëpp xam nañ ko muy Mamadou Kora Fall mu nekk ancien maire de Rufisque yàgg def lu rafet ci Tëngéej donc bi mu déggee initiative bi ma def ko ak yi ma def daf ma woo. Mhm, da jàpp. dafa ma woo. li mhm. ma dama lay encourager si li nga def xam nga tey dompet sax si sot la bokk. billaay tey li ma def yëpp man dama ko def ak fonds propre. Mhm. amul kenn ku génne xaalis ni ma am maa la ko jox pour nga def ko tëngéej. xaaroo ci kenn yow yaa jël sa initiative bu bopp mais képp koo xam ni. woo nga ma téléphone wala nga def benn action bu ndaw dafay rafet ñu remercier la parce que ñun ñëpp ñoo bokk tëngéej. Kora Fall moom moom bu waxul it loxoom dina dikk moom ci loolu lañ ko xamee dañu xam ni nit la koo xam ne franchement dafa yàgg def lu baax ci Tëngéej man xam naa man bi ma nekkee xale mosuma ko gisee waaye yàgg naa dégg ay man bi ma maa ngi koy fàttaliku am ay sept yooyu bu daan jàngi école dama daan xëy xam nga man dama daan bañ a jàngi mhm. bu ñu ma xëyal jàngi ma bañ <laughs> wala affaire yooyu léegi su may jooy wala ma mer yooyu àllu uh-huh. mer bi daf ma daan nax naa maan noppil bu école tijjee ñu dem si Kora mu may la kaye parce que moo njëkk a def librairie uh-huh. librairie librairie yi moo ko njëkk a am à Rufisque uh-huh. te librairie bi presque man moom laa mës a gis mu am magasin boo xam ni magasin bi day maye da ngay ñëw am facture cent vingt mille nga joxe soixante mille mu may la yeneen soixante mille yi franchement mu nekk koo xam ni il a beaucoup fait pour Rufisque donc dañ koy remercier moom tamit di ko ñaanal yàlla may ko wér et puis di remercier tamit waa TFM bu baax. Mhm. parce que su may partenaire lañ ci lépp lu may def soo xoolee spot bi mu ngi jàll fii bu baax a baax a baax baax. ci kër gi nga bokk di Youssou Ndour suma mag la mais suma xarit la lépp loo xam ne engagé naa ko daf ma ci taxawal. d'accord xam nga léegi nag dafa am benn affaire bu tuuti. boo xam dama ko yóbbante suma benn sœur muy Kumba Gawlo mhm. dama def suma anniversaire. Mhm. xam nga xel day fattu. keroog ñu am fu ñu daje man ak moom mu ni ma maam waroon nga maa woo Mm-hmm. te Matar daf ma confirmer léegi dara dañuy waxtaan mu ne ma même moom laaj na ko ni ko ndax maam góor a wotewu fi mm-hmm. donc nag je profite de l'occasion dala sopp moom pour ku la bëgg la xam nga xamal ko ni moom sama sista la te mm-hmm. jigéen bu mën góor la donc maa ngi koy woo lépp lu may def bu déggul sax turam na xam ne moom ci la bokk sista la suma xarit la am na fu ma ko def parce que tey jii képp kuy nit ku baax si réew mi kuy ba ku boo fekkee da nga baax laa wax de ñi bon seen business la d'accord léegi a poser benn baax moom da nga ko war a bëgg. dëgg la xamul tax. Mhm. parce que jigéen la ñaari loxo ñooy waddu. billaahi mais ñaar ñooy waddu ser c'est une battante. day non la macha allah maa ngi profité ci occasion bi di ko nuyu di ko remercier et puis di ko jégalu. <laughs> message bi àgg na léegi man dama la bëggoon laaj man ñaari ndaanaan xam euh, Tëngéej. Mm. muy yow ak góor gi mm. macha allah seen jaloo rek la ngeen def Tëngéej ñëpp xam nañ ko. Mm. Tëngéej naw leen lañ ndax nga xamante ne moom ngeen di xëy di fa def fois léegi est-ce projet yéen ñaar yi nga xam ne ay doomu Tëngéej ku ci nekk ci yéen mu ngi xeex pour Tëngéej nekk la meilleure ville. est-ce que am ngeen ay projet duo yéen ñaar. non amuñu benn projet duo. lu tax non parce que man xam nga man télé laa nekk di wax. waaw def na def na anniversaire am. waaw grand théâtre. Mhm. invité wu ma. ma def sama anniversaire Sorano invité ko ñëwul. ñëwul ñëwul donc. sama grand frère léegi invité wu la peut-être yow ko fàtte comme ni mu ni nga fàttee Coumba Gawlo te xam nga Coumba Gawlo kenn mënu koo fàtte non damay déglu ma la mhm. man man je suis direct d'accord man du ma nekk sama grand frère la j'ai beaucoup de respect pour lui mhm. mais il a fait son anniversaire ñu bokk benn quartier invité wu ma oh. ma def sama anniversaire dem seeti ko yëgal ko ko ñëwul comprendre la kon du ma defati dara di ko yëgal j'ai beaucoup de ma ko day naa ko nuyu naa ko respecté mais ñëwul sama yëf du ñëwul sama yëf du ma nekk di la topp di la woo amul problème léegi dama bëgg nga fàttali rapidement datu concert bi comme ça ñëpp maa ngi koo fekk la fa incha allah tey la à 18 heures mhm. maa ngi woo ñëpp d'accord képp ku nekk Sénégal di nit ku baax wala ngay lébu wala ngay mhm. Rufisque quoi maa ngi lay woo tey à Rufisque à partir de 18 heures uh-huh. merci beaucoup merci beaucoup Mame nga Baye Fall nga ay ci